divorce am ndax euh, <laughs> jàpp nga ne loolu noonu lu mën a confirmé wu la waaw ay dem na voyager ànd na jëkkëram wala àndul ak jëkkëram. loolu la ñuy seetlu moo tax ñu ne dafay divorce waaw loolu la parce que mhm. boo xoolee benn yoon la mës a voyager ànd ak ki nga xam ne mooy borom këram. mën naw ko ci bu loolu. da ko yàlla parce que ay Dubaay ak yooyu da ngay gis chaque jour ay xale jigéen yu fay dañ leen di ut dara loo xam ne dañ leen di kaasal seen mhm. dëgg maam Ndiaye Savon voyager na ànduwaatal li nga xam ne moom mooy jëkkëram parce que dem na demati na bi paas ñu ko mu ànd ak ay employés am bii ci topp ñu gis ko mu ñëw ànd ak ki nga xam ne mooy yaayam ko maanaam maam Ndiaye Sama du dem fenn moom kase mhm. même toujours bu dee génn dangay gis ay employé am lay ànd ak di mhm. génn mhm. sénégalais nag dafay toll foo xam ne vie privée jàmbu nit ki sëy na wala tas na wala tas na wala tasul maam Ndiaye Savon nee na bu tasee même bu dee tas na toog sax bañ a bañ a wili pande li nga xam ne mooy tasam kooku ba gën a sëy ba tey yoonu kenn nekku ci te yoonu kenn nekku ci te vie privée am la mu sekk nit ñi mooy jaay mu jàmbal nit ñu diw ñu diw wala mooy ndi nit ñi ab bàyyi wala dara ñu jënd sol mais sekkut ak askan bi lu muy toogee naan leen xëy na maa ngi sëy wala sëy sëyuma wala tas naa wala tasul mm. nit ñi ñoo war a toll foo xam ne ñoo war a génn ci vie privée doomu aadama mm. te nañuy wax sur les faits ci def def yi nañ ciy wax waaye di bàyyi li nga xam ne mooy viom ak jëkkëram la mm. dem na ba nit ñi di di di constaté ne jëkkër ji sa fay dafa supprimer ay ay vidéo lépp lu mu doon ànd ak Mame Ndiaye Savon ko mm-hmm. supprimer parce que bu demee ba nga xam ne bëggatul peut-être ay di wane jabaram wala dara donte bu dee tas na wala tasul loolu lépp concerné wul askan bi mhm. boppam la concerné ki nga xam ne mooy sëy mooy Mame Ndiaye Savon loolu kooku la concerné comme ay tas na wala tasul wala Mame Ndiaye Savon ànd naa kii wala ànd naa kële loolu concerné wul kenn kon nit ki na toog mu sëy sëyam te yàlla tax li mu sëy ak nit ñi mooy di leen wan jàmb ji mm-hmm. dégg nga ñuy wax naan ay xees na ñii naan xees naa wala xeesuma loolu la sëkkanteeg nit ñi ak génne li nga xam ne moom mooy bagage am wane ko publier ko mais nañu bàyyi di dugg ci biir nee na Mame am na problème mais tasul quoi femme se waaw léegi moom confirmé ne ne am na problème mais tasul ak jëkkëram mais tasul waaw bu mhm. demee tam ba confirmer ne moom am na problème ak jëkkëram mais tasul mhm. kon kooku ñu bàyyi ko am na problème te problème fii lañ ko fekk ci sëy sëy bu ne da ngay toog ba ci yàgg gis euh, sëy moom toujours yaa dee woo yaa dee baax mhm. ndax sëy moom amul benn sëy bu neex ndax tey bu neexoon tey jii boo fay dem kenn du la yedd di la yab naan la boo demee muñal wala dara foo dégg ñu naan muñal kay xam nga ne naqara nga fa mm-hmm. ndax sëy moom yaakaar naa ne kaane la bu ñu baraayee ak lem kasa la da lekk kaane gi ba mu jeex tàq nga doo ko jot ci lem bi wax dëgg yàlla jàmbaar la mm-hmm. jëkkëram ni ñu ko gisee ak ay parole yu rafet yi nga xam ne kaddu yu rafet yoo xam ne yoo la doon génn nañ bàyyeeg sama jabar sama jabar laa bëgg maam ne tasuma même nit ki bu nee dafa tas ngeen topp ko naan bu leen topp nit ki ba mu sës waaw maam Ndiaye Savon sekkut ak nit ñi sëyam jaayam ak jàmb lañ ko xamee nañ wax ci jàmb gi am na droit sax dem sama dëgg mari na waa dem te du ànd ak jëkkëram jëkkëram yor na yor na mm-hmm. ay euh, projet boppam yor na liggéey boppam donc du topp man jaay tout le temps tout le temps ñu bàyyi loolu daal leen laa ciy wax mm-hmm. moom bu yidda ji jeexee mm-hmm. idda ban xam naa ne moom ku ci dal di am sens man idda nga kon maam Ndiaye tas nga a confirmer dama ne mm. bul yóbbu samay wax ah mais idda wax ah ngoone maam Ndiaye sama la mu waxoon rek ah. loxo yu ko bàyyi loxo ñu tax bu yidda ji jeexee daal moom wax dëgg yàlla mu libre moom boppam te lii mu def it dem di voyager di yóbbu yaayam moo lay wan ne Mame Ndiaye Savon nit ku baax la parce que xam na sénégalais yi. dañoo ñaaw làmmiñ mën a sosalaate mën wax ju ñaaw bu demoon tukki waat moom kese mën nañ koo waxal ay wax. moo tax tey mu dem mm-hmm. tukki ànd ak yaayam parce que yaayam di femme bu digne am personnalité kenn xamu ko ci caaxaan di ku baax nit ku dëggu moo tax mu ànd ak yaayam. Mm-hmm. waaw loolu léegi nag nan euh, bu ma jàllee ci loolu. Mm-hmm. nan wax ki koy waxal wax yi mooy kan mooy jimboor yi moo fi toog fii la toog fii di critiquer Maam Ndiaye naan Maam Ndiaye jaaykatu savon la jaay saabu baaxut waaye jimboor yi lan lay liggéey jimboor kan la fi topp du Ramadan la nekkoon. Mm-hmm. moom du musicien de. Mm-hmm. xam nga musique dafa ni musique ñëpp nee nan dafa araam. jaay savon dafa araam moom da doon topp musicien yi. léegi topp musique toppee toppee la doon def kon kon moom ci li mu nekk moom est-ce que moom bu ko Maam Ndiaye Savon gënut moom gën na Maam Ndiaye Savon jimboor yi booy war a mën a taxaw di critiquer Mame Ndiaye Savon dama lay laaj. Hmm? kon dama noonu est-ce que moom li muy def dafa gën li Mame Ndiaye sama def mais borom xam-xam yi wax nañ ne loxo biy joxe ak loxo biy tàllal ban moo gën loxo biy joxe. Hmm, hmm, Jimbori lan la fi def ak lan la fi joxe. Mame Ndiaye Savon bu màggal jotee jotee mu joxe. gàmmu mu joxe. Kazu Rajab kenn waxatu ko day xaru. laa yen buñ organiser mu dem. jaasaan noonu. yor ay employé chaque jour di sóor ay ceeb ay kilo kilo ceeb. dëgg di ko di ko joxe. léegi li boroom xam-xam bi waxoon bi ko bi ko wàll wi di critiquer wàll wi ku nekk di ko critiquer naan ko yow sa wàll wi jaaxal nañu. mun woo leen ban ñëw daal di nag ñëw leen mu teg fi benn butéelu sàngara teg fii kaamil bi nee na su ma xellee fi benn kaas guux jàng fi benn aaye xelli benn kaas guux jàng benn ay xelli benn kaas guux jàng benn ay nee na ba ëllëg yomal xiyaam ñu teg ko ci balance yàlla yàlla lan la wax ci benn booba defee benn lu bon lu bon hmm. benn la koy fay hmm. te bala mu koy fay eh, maanaam benn bu bon bala ñu koy bind dañ koy denc xool ba xam boo ko tuubee ñu def ko ci lu baax hmm. bu dee benn benn bu yiw ñaata la fukk alxuraan par benn ah, lu ñuy fay par benn araf aaya par benn araf na ñuy fay ñuy fay fukk boo lëgee yomal xiyaam ban mooy ëpp ban mooy ëpp boo lëgee yomal xiyaam bi nga def li ngay def lu lu baax lu baax lay ëpp waa kon maanaam loolu waxtaan la pour ibbi xel yi pour ñu mën a comprendre li maam Abdou Aziz Dabaax doon wax ne nan fexe ba su lu baax yi ëpp su lu bon yi maam Ndiaye sama kon ma nga ci yoonam mi ngi ci li mu war a nekk parce que ku ko xam-xam ne mi ngi def lu baax. Mm-hmm. ndax ku dem ba jël sa doom tuddee ko sëñ lu Mbacke. Mm-hmm. te maam Cheikh Fall nee na naafiq ñaar yi mënu ko tuddee eh, jël doomam jox la ak alalam. Mm-hmm. looloo waral maam Cheikh Fall maanaam ak borom Tuubaa ñu saxal addiya ak jël doom joxe ni ko Rasulullah sallallahu alayhi daan defee nga xamante ne nii. dana dana ko daan jox àddiya ndax yonent bi salaa salaam ba mu njëkkee ba mu génnee àdduna rek ca saase dafa am ñu taxaw ne ñoom dootuñu joxeeti asaka kon naafeq mënul joxe mm-hmm. kon Jimbori na may boppam jàmm te maam Ndiaye sama ku xam-xam ne mi ngi joxe kon génn na ci naafeq maam Ndiaye sama ku ko xam-xam ne daa jël doomam doom li gën a for mu jël ko tuddee ko sëñ Fallou Mbacke kon wàccoo naa ak sëñ Fallou Mbacke mm-hmm. te sëñ Fallou Mbacke nee na ku ma tuddee doom ma dugal bàyyi àjjana dugal ndey àjjana moo ko moo moom fu mu bokk. moom murit la wala tijaan wala laayeen la. loolu <laughs> ñoom ñun xam nañ ko ci wàllum ramadan rek ramadan. Euh. ci la wax ak théâtre Jimbori ñun xam nañ ne jullit la rek man xawma sax maam turam sax man xawma ko parce que turu Jimbori du Jimbori du turu jullit. <laughs> Jimbori lan moo lan la wax di diina lislaam lan la wax ci soppi sa tur tuddee ko leneen est que moom référence la. non damay laaj est moom référence la. <laughs> amul solo grave ah non mais nit ñi nan yeewu tuuti nag. ah déedéet euh, bu ah, waaye waaye côté ma dégg maa ngi dégg sëñ Bada naan nii te xam nga gisoon nañ fi ci wàllum euh, kii bi sëñ Bada taxaw ni wax naa Mame Ndiaye Savon yàlla na ko yàlla dafa dëkk du baax. <laughs> léegi Mame Ndiaye mun naa idda nit ñi génnaat naan ji te tey taxawaat na naan idda. kon yaakaar naa ne kon sëñ Bada. divorce bi ñuy wax ci Mame Ndiaye kon boo yeggee tamit affaire bi mi ngi ah, bëgg a doon dëgg ah samay wax de man de waxuma ah, dara de ah, kenn yóbbu sama instant fi toog kenn seetaanuñu bu leen ma tolal de xam nga ni man damaa weex dunk damaa weex dunk waaw da weex dunk waaye comme bu ñu waxee loolu Moussa Faye sama waay la nit ku baax la wax dëgg yàlla jox na ma ay ak ay dàll ak lu nekk Moussa Faye nit la waaw nit ku baax la waaw daal waaye sëy ak tas nag fii lañ ko bàyyi kon dafa mel ne kon affaire bi li ñu wax dëgg la mm. parce que euh, maam nee na li kii wax kasa léegi faamakas ci commentaire yi waaye waaye bàyyi tasul quoi mais xuloo na waaw xuloo léegi nag ta euh, sëñ Bada boo waxee mu naan maam loxoy ko bàyyi loxo ngi taxaw ndax jigéen bu baax naa di ah, ko sëñ Bada waxee loxo bu ko bàyyi macha allah ñaanalu ñu ko ah bu dee mi ci sëyam yàlla na ci yàlla euh, def barke mu continuer waaye yaakaar naa loxo bu ko bàyyi midi midi une minute macha allah loxo dina taxaw te sëñ Bada mi borom kéemaan te xam naa ne am na ci ay dossier yu leer. yu am kase am na lu lu ci lu ci nekk. Mm-hmm. yu leer yoo xam ne yu am kase. te jigéen nag bu demee bañ naan tas naa mu ne tasuma rek kon kooku mi ngi bëgg borom këram. ba tey waaw mais bu mm-hmm. yidde gi jeexagul kay mënugul tas il faut yidde gi jeex. waaw waaw bu yidde bi jeexee nga. waaw laa mën na génn. mais idda moom moom faaw ñu prononcer divorce quand même. idda doo am ku mu neex mën nga téye ba sa yidde jeex bu yidde gi jeexee mu taxaw prononcer laa bu boobaa bu ko pronosé suba gi ngoon gi sax mën naa sa yëy goro loolu amul problème méttiwul ah waaw wax na ah, dinañ ci waxaat dinañ ci waxaat mm-hmm. jërëjëf euh, Mame Ndiaye kon ñu jaajëfal ko moom nag vraiment parce que gis nañu social bi gis naa mu euh, daggal ki nga xamante mooy umu umu jabaru boos billet avion aller retour buy dem Europe di fajo ji kon kooku noonu euh, dañ ko war rek saluer parce que tamit ak emploi yi nga xamante ne am na ko mm-hmm. ndax mi ngi contribuer ci développement Sénégal mm-hmm. nitu social la ñuy gis muy Bamba ba <laughs> suñu directeur bi nee bu émission bi jeex mu ne <laughs> nee bi jeex PDG <laughs> émission bi faaw mu jeex bu émission bi jeex bu émission bi jeex kon nag kon est-ce que doo woowaat maam waalo ñu jéem a jubóole maam waalo ak sëñ Bada ak ak sëñ Bada waaw loolu la de moom parce que bu dul bu dul dara tamit nit ku ci nekk da ngay xool nag maam yaay sabon boo xoolee ba xool rek moom jàmbaar la daal wax dëgg yàlla sëykat la da wax dëgg yàlla mi ngi def ay social ay nit ku baax la nit koo xam ne dafa mën a maye alalam mën a sonn ci nit te nit ki moom bu mu nee maye alalam mën a sonn ci nit rek kooku danga koy jàppee ne mhm. koo xam ne ne nit ku baax la wax dëgg yàlla mhm. vraiment ñun li ñu koy ñaanale ndax loolu mu def ci diggante boos ak ummi gis nañ ko mu génnee li nga xam ne moom mooy billet jëndal jox ko ki nga xam ne moom mooy boos te gis nga maye mhm. maye ak sangu seddaay yaakaar naa ne ñoo yem ku koy def du ko waaj maam lu ko waay di mën a waxal mooy bëri na histoire mën naa tooñ waaye mën naa def lu baax mën naa maye alalam mm-hmm. du dëgg histoire moom da koo def te képp ku ma ko lool moo tax ma ne kuy dugg ci histoire maam Ndiaye Savon da nga ca des mm-hmm. parce que maam Ndiaye xol bu rafet la am ku dugg ci xulóom sax buy rocceeku di dem di juboo jeg kooku mm-hmm. wallaay doo ko doo ko yëg parce que nit uh-huh. xol bu rafet la am parce que lii mu def gis ummi mu toog nit koo xam ne muy jigéen bëgg sëy te yàlla tax ci wàllum tànkam boobu mu yëkkati alalam yëgati ko def si ne ko maa la may nangam nga dem te bi muy dem gàddu yaayam jël ko yóbbu ko ay rakam ñëpp mu teg leen ci bon condition ba dëgg yàlla dañ koy ñaanal rek yàlla defal ko jàmm ndax jàmbaar xam naa la ñu am ci maam Ndiaye mosuñu ko am fenn loolu tamit mm-hmm. il faut il faut ñu reconnaître ko alors ñuy jaajëfal Ndoura Sène Fama Kassé merci beaucoup maman Ami Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax Papis également ñu ngi lay gis ñu ngi lay euh, jaajëfal bu baax kon nag bu ñu jotul euh, euh, ki nga xamante ne moo di moor Diop ñu ngi lay jaajëfal borom pur ñu ngi lay jaajëfal bu baax kon ngoone mm-hmm. sama